yoona saar fukk ak loolu dama leen ko wax ngir seen ngëm bañ a wàññeeku dinañu leen dàq ci jàngu ya dinañu dem ba jamono joo xam ne ñi leen di rey dañuy xalaat ne ñu ngi màggal turu yàlla dinañu agsi foofu ndaxte xamuñu baay bi te xamuñu ma loolu nag wax naa leen ko ngir bu waxtu wi jotee ngeen fàttaliku ne yëgal naa leen ko waxuma leen ko ca njaalbéen ga ndaxte maa ngi nekkoon ak yéen léegi nag maa ngi dem ci kama yónni te kenn ci yéen laajuma fu ma jëm seen xol dafa jeex ndax li ma leen wax moo na de ci sama wàll dëgg laa leen di wax li gën ci yéen mooy ma dem ndaxte su dul loolu dimbalikat bi du ñëw ci yéen waaye su ma demee dinaa leen ko yónnee te bu dikkee dina yey niti àddina ci lu jëm ci seen bàkkaar ci lu jëm ci sama njubte ak ci lu jëm ci àtte ba ci mbiri seen bàkkaar dina leen yey ci lu ñu ma gëmul ci mbiri sama njubte dina leen yey ndaxte maa ngi dem ci baay bi te du ngeen ma gisati ci mbiri àtte ba dina leen yey ndaxte àtte nañu malaaka mu bon mi jiite àddina si ba daan ko li ma leen war a wax bari na waaye du ngeen ko mën a dékku bu xelum yàlla mi yor dëgg gi dikkee nag dina leen gindi ci lépp li jëm ci yoonu dëgg ndaxte du wax ci cobare boppam waaye lu ko baay bi wax mu jotili leen ko dina leen yégal mbir yi ñëwagul dina ma màggal ndaxte lu mu leen wax ci man la ko jële lépp lu baay bi am maa ko moom looloo tax ma ni leen lu mu leen jotili ci man la ko jëlee ci kanam tuuti du ngeen ma gisati bu ñu ci tegee ab diir ngeen gisaat ma loolu yéesu wax tax na ba am ca taalibe ya ñu waxante ne lu muy wax nii ci kanam tuuti du ngeen ma gisati bu ñu ca tegee ab diir ngeen gisaat ma ak naan ndaxte maa ngi dem ca baay ba ñu ne teg cab diir lu muy tekki xamuñu li mu bëgg a wax yéesu gis ne am na lu ñu ko bëgg a laaj mu ne leen dama ni ca kanam tuuti du ngeen ma gis te bu ñu ca tegee ab diir ngeen gisaat ma ndax loolu ngeen di laajante ci seen biir ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax dingeen jooy xàcc waaye àddina dina bég dingeen jàq waaye seen njàqare dina soppali ko bànneex jigéen ju nekk ci mat dafay jàq ndaxte waxtu wi mu wara jur jot na waaye bu doom ji juddoo dina fàtte coonoom ndaxte day bég ci li doom ji gane àddina noonu nag ngeen di jàqe yéen itam waaye dinaa leen gisaat seeni xol sedd te seen mbég moomu kenn du ko mën a dindi bés boobu dootu leen ma laaj dara ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax baay bi dina leen may lu ngeen ko ñaan ci sama tur ba léegi ñaanagu leen dara ci sama tur ñaan leen mu nangu bu ko defee seen mbég mat loolu lépp dama leen ko wax ci ay misaal jamono dina ñëw ju ma dootul wax ak yéen ci ay misaal waaye ju ma leen dee wax lu leer ci baay bi bu keroogee dingeen ñaan ci sama tur néew ma dinaa leen ñaanal baay bi ndaxte baay bi ci boppam bëgg na leen bëgg na leen ndaxte bëgg ngeen ma te gëm ngeen ne ci yàlla laa jóge jóge naa ci baay bi ñëw àddina léegi maa ngi génn àddina fekki baay bi taalibe ne ko léegi yaa ngi wax lu leer te misaaloo léegi gis nanu ne xam nga lépp te soxlawul kenn di la laaj dara looloo tax nu xam ne yaa ngi jóge ci yàlla yeesu ne leen ndax gëm ngeen léegi waxtu waa ngi ñëw te agsi na ba noppi dingeen tasaaroo ku nekk ñibbi ma des man rekk waaye nag déedéet weetuma ndaxte baay baa ngi may li dama leen a wax loolu ngir ngeen am jàmm ci man dingeen am nattu ci àddina waaye takk leen fit yi noot naa àddina